jërëjëf mbokk mi ala kulli xaalin ci laaj bu am solo bi mbokk yi ñu ngi leen bàyyi loo xel bu baax ci lu am solo mooy ñi nga xam ne dañuy def ay ñaan ci guddi pour bëgg a xam seeni mbir ci dara wala di gëstu benn mbir ñu gént ñu wan leen ko nañuy bàyyi xel su suñuy wax ci vocal ci gént bi ñuy waxaal noonu ndax am na ci gént lu ci aju lu bari loo xam ne mënoo ko leeral ci am bind am na loo xam ne damay envoyé nit ko vocal wala nga woo ko téléphone nga expliqué ko début au fin mu leeral la ko ñi nga xam dañuy def listixaar ñu wan leen dara ci gént bu ñuy wax bu gént gi nañ wax dama doon def listixaar pour ki lay gént gi xam waaye damaa gént rek loolu tamit dañuy ñu ngi koy ñaan ñëpp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax am li ci bëri loolu daal leen dal dañuy def listixaar ñu wan leen dara ñu ñëw ne damaa gént bi nangam listixaar ak gént day am ay wuute ndax dangaa laaj léegi moom dangaa jékki-jékki rek gis ko ñu bàyyi ci xel baax baax wala kul xaale ñi bëgg seen i gént ñu firi leen ko lu gaaw mën nañoo envoyé vocal wala ñu wat téléphone numéro bi mooy 78 443 75 27 wala kulli xaalin ñi bëgg seet wala ñu am jafe-jafe ci wàllum farata incha allah rabbi kon koo xam ne dangaa gént yàpp xonk 3 jours soxna ci nag ni ñu ko tegalee di gént baaxul nañ lay xew-xew lay doon de xew-xew wala ay jafe-jafe yu metti na nag nga ne sa boroom kër boo xam da ngeen nekkoon ngeen nekk di jooy muy doy waar ala kulli xaal nag nekkul lu gën eh, yàpp moom di ko tegal gént ko sax daa baaxut bu ñorut wax ma laa nag boo xam ne danga tegal di ko gént eh, benn mën nay nekk ak faatukun lay xamal mën na yéex mën na gaaw waaye ilaa tawat wala ay xat-xat boroom kër nag ngeen tàqalikoo ngay gént nekk ak moom di jooy loolu dinay tegtale diggante bi lu mën a amaat la waaye du yomb nag incha allah bi